asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu jëriñu kër gi nag yéen ñi xam yéen a jëriñu kër gi ci turu jëriñu kër gi suñu Fallou Tall jëriñu suñu Tall di nuyu rakkam yi tëdd yi di joxe baat boo xam ne daa bëgg rek moom nu jot lu ko rek ba mu gën a yaatu lool yéen ñi xam ne daal lu ngeen dégg ñëpp di ko ah, jëriñu si jëriñu ju baax ji di suñu sa mbàkke moom suñu Abdou Latif ah, Baay Faal boobu ànd ak noonu dafa yónni waatam kenn ci meññeetam mii di Sëñ Abdou Mbacké hmm, yónni yoo xam ne daa bëgg rek moom nu nu doyal koo yaatal daa bëgg baatu ndigal boobu suñu joxoon daal ñëpp gën ko sàmm mbooloo mi mbooloo mi nan gën a néew ci dajaloo gi te ni bàyyi xel tam yii masque yi takk suñuy su suñuy bakkan ak gaa yi ni sol lépp kenn ku ne na ko jéem ndigal moom saa soo ko jéeman ko rek boo ko jéem la mu sukkandikoo la dem loolu lañ bëggoon soñu war moom ndaw li léegi la egsi mu Sëñ Abdou Mbacké moom moo si suñu suñu sa mbàkke suñu bee ko yónni ma jóg wéer rek ma fi barab ci jéeruñ ci yàlla ko yónni woon jéeruñ ci joxaat baat bii bëgg nag nu àggal ko ba ca jéeruñ ju mag yi moom ndax ma bunt bi kasi ma deminte kon nag yéen ñi xëy nag yéen yéen jéeruñ kër gi na ngeen jot loolu te jot jot ko mbooloo ñu ne tubaab mbàkk ci daal ñoo ci raw ah, ni ni ñëwee ci ndog yi na gën a yaraax te ku egseet nuyoo ba noppi dellu nag ba ba diir bi ñu ko waxee jàll day am baatu ndigal boo xam ne soo ko déggee lu diis diis jëfe ko fa saasa doonte ak télé ci toppe télé ki si ak man la lay firi yow kon nag sëñ bi nee na baatu ndigal bi mu joxoon ci liggéeyam dog yi te te nu defee ko ni mu ko bëggee dafay wéet lool na na naan ko dolewaat nag ñii dem ci oto yi na néew lool oto kenn da caa mën a ñàkk ne ndax mooy su ko ñàkk a wàcc mbaan aj ko kon naan bu ci kenn nan toog tey ci oto yi bu dikkee am nañ ñu ko seddale loolu la waxaat léegi léegi jotaay itam ñu fexe ba muy néew ku ñëw daal andi sab liggéey te boko ci ñin limoon ni ñoo aayate jii ci liggéey bi dellu déglu baatu ndigal lan leen ko waxaan rek ñun jëf ba asamaa suuf gënloo du tax nu am dara li li ñuy jëriñ mooy baatu ndigal képp baatu ndigal ba mën a jëriñ kon nag gaa digal nañu li nu digal nag ñëpp maase ku jot kii ku jot ndigal nag te te fexe ba kenn jotaat ci sa morom mu non ñaa liggéey bu ma sa fekkee sëñ Tuubaa rek lay sa bëgg yow yaa yàlla xam ku ku yaata ku daal nu ñaan suñu boom defee la ko muy sa pay waay kenn ku ne na fexe rek ba jotali ko donte ñaar la donte ñett la fukk la fexeel ba jotali ko baat bi bàyyi ko ci sëñ Tuubaa Cheikh Mouroum daa Mbacke Cheikh Mouroum taxa jaar ci Cheikh Mbacke monsieur mu yebal mu andi ko nag ci jëriñu Cheikh Mouroum Fall ji bëgg moom mu xam ay kilifa ma ko def mu seen jëwrin mu tàmbalee ko jëwrin ju mag ja xam ne nag lu lox moo tax di ko wax lu mu def moo tax di ko def di sëñ sa jëm faal seera faal sëñ mu joxaat baatu na yaatu kon nag kaddu yaa ngi nii na ci ñëpp jot rek ma ma ma jot ligi rek ma ci war waaye ci moom la bàyyi ko moom itam ci kilifaam la bàyyi ko moom ci kilifaam la bàyyi ko yooyu loolu wax ak yéen ci wolof la ñu xam yéen ndax a ngi def na yaatu rek na ko muur yëpp déggandoo kenn ku ne na nga fexe donte na nga fexe soo amee mën a am ñaar bu bii sonne nga nga nga fóot ba jës lu ñaaw di ko takk rek la euh, loxo li ñaaw ci gaañ itam mën ngaa morso mën na koo baaram waaye bu ko ñëpp xam nañ ni ndigal nañ wéy rek xam nañ ni suñu yaakaar jëpp suñu tuwaal ne gaañ yi ñu takk ak masque yeeg lépp duñ koy def ngeen digale waaye seen wuñ ci ak wér seen wuñ jàmm suñ suñ suñ lépp laaj seen wàllu koñ noo noo yaatal loolu yi te bëgg ñëpp jot léegi léegi léegi di yàlla woo ci turu sëñ Fall lu jëm suñu mbirum daal ci turu suñ ci turu Serap Fall jë jë jëriñ ah, di si sa jëm Fall noo ma noo jot ndigal li mur yi noo jot ndigal loolu mu yëpp nag na ci ñëpp jot rawatina yéen yéen kër gi ni ma koy waxee rek yéen ñi nga xam ne lu nga jot ñëpp jot asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh